yàlla mu màgg mee màgg li mu sàkk day tegtale ak màggam rawante na aras ak kursi yu aras nee nañu mboolem mbindeef yi moo ci gën a rëy kursi yu ba tey burum kumpa waaye ni ko yenn addis yi indee dafa reuy ba nga xamé né ku bolé won asamaan suuf la muy yaatu yaatu sànni ko ci bir kursi yu day mel rek ben jaaro bo sànni ci manding manam ci àll bu yaatoo yaatu te mu teg ne ni aras ëpp kursi yu mi ngi melne na àll bobé gëna lëye jaaro ba nga ca sànni وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة تبوك دفع إضافة وإن وإن فضل الحرش الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة تمني mu برم صبر rek يمو sa boroom gi li nga ci ñu koy tudd ci asamaana suuf ak arasa kursi lépp lépp menn moom dong moo koy doxal na mu bëggee te dara dara du ko ca diis nga xam ne li ngóor gi yaatu yaatu ak li mbindeef yi bari bari mooy doxal lépp te du ci yëg du ci am genn diis luy nur ak jafe ndax mbiram moom mooy rek kun fa yakun mooy la mu ne wala yauduhu xifduhuma melo yi mu tegale nag muy melo yàlla noonu la ko ar risaala andi woon al aliyu al azimu al alimu al xabiru al mudabbiru al qadir al sami al basir al kabir nga ne kon yàlla mooy ku kawe kaa kawe mooy ku màgg kaa màgg mooy ka xama xam dara ump ko mooy ka kumpaam denc ci lépp lépp mooy doxal mbir yépp moo mën lépp tëliwul dara dara mu amee dégg ba yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom wax ga itam dana ko indi ci kanam tuuti yàlla daa amee wax ga yàlla ca moom gis ga yàlla ca moom dégg ga yàlla ca moom mu daaneele yàlla nag moma nangul sama jihad jima don jihad nangu gu reene ni jëmum ji magge nangu gu reene ni jëmum ji reye bu ñu ne yalla ma nga ca kaw aras dañoo bëgg wax rek nu mu kawé melni aras mooy dalilu nguuram te nguur daana di am dalil waaye jubluñ ne day mel ne buur nga xam ne boo demee ca ba fekk ko mu toog ci ab toogukaayam yàlla moomam aras moomam kursi yu moomam fépp ak lépp duñ wax ne barab sàngam mooy barabam duñ wax ne it jëmam ji daa nekk fépp ndax fépp barab la te yàlla xajul fenn yàlla amul jamono amul barab namu melon, bamu sakugul, barab ak jamono batay nona lamel, la mel mom mom barab yep, momom, mom jamono yep, momom, mom lepp lepp xam lepp di doxal lepp ñu nekon, ne kon lépp nga xam mom te bañ wax ne jëmum ji ma nga fepp tax bo ne ma nga fepp rek kon génnul barab mi ngi ci biir barab bu ñu nee it saa yu ne mi ngi ci mbir nekki kulla yawmin huwa fii sha'nin dañuy wax ne shu'unun yubdiha laa shu'unun yabtadiha maanaam saa yu nekk la mu rëddoon ne dana am te moom moo koy doxal bu àggee ca waxtu wam koy sottal rek sottal ko waaye du ne day àgg ci mbir door koo xam doo caa sàkk ay pexe door koo jéem doxal kon mbir yépp nam ko xame woon rëdde ko noona lu ca àgg ci waxtoom rek mu feeñal ko ci coobareem waaye duñu ne daa am mbir yu yees di ki mbir yu xamutoon bi ko xamee nag mu wëlbatiku am nu mu cay jéem a limu ne won sax ma nga ca kaw arasam gu mag ga te nekkam net kaw aras don rek nekkuk kawe ku tedd du nekkuk jëmm ju war ci kaw ab togu ba dara mom lay fedd li ne yalla su borom dal mu ne ne ci màcceer sangam ba ci nangam lañu ja ba jëm ja ni ngay waxe ni nit mi ngi bàyyikoo ci suuf jinne bàyyikoo ci sawara leneen bàyyikoo ci matière sàngam yàlla duñu wax ne ci nàngam la bawoo ba muy am duñu wax ne itam yàlla mi ngi ci biir nàngam mbaa ngi ci kaw nàngam ndax bu ñu ne yàllaa ngi ci biir nàngam kon loola daal na koy ëmb ci wet ku ne bu ñu ne yàllaa ngi ci kaw nàngam kon loolaa ko taawu te kon la ko taawu da koy daal di ëpp doole kon yàlla duñu wax ne daa bàyyi koo ci nangam soqi koo ca muy cosaanam duñu wax ne daa nekk ci biir nangam duñu wax ne daa nekk ci kaw nangam mbaalu nuru loolu